ndax man instant bi mooy bañ a wax comme beneen problème amaat mais ñii dañ may utiliser te ki ma boolee ki ma boolee Ousmane Tounkara kooku lépp moom moo nekk ci ginnaaw te kooku tamit instant bi am na lu ma ko xamal lu loo xamante ne nii instant bi daal man man damaa nekk ci danger daal xaw ma daal tiit naa trop sama bopp. kooku Serigne mi la tudd mooy Serigne Ousmane Sonko moom moo ma boolee ak Ousmane te avant may boole Ousmane Tounkara tëdd na ma moom moom tëdd na ma ba jox ma vingt mille francs te jour boobu maa ngi boobu man maa ngi woon mbuur moom mu ñëw fa moom mu ne guddi lay dox te xam naa ne man maa ko yëkkati woon te dafa jógoon uniquement pour loolu te xaw ma loolu tamit lan la si jublu man na indi leneen ak leneen ak leneen moom mooy sëriñu Ousmane Ousmane Sonko mooy sëriñu Ousmane Sonko loolu la wax te après dafa def le tout bi biñ liwee sama téléphone dafa na le tout ba jël numéro am supprimé ko sama téléphone amatuma woon numéro am fenn instant bi daal man yeneen problème laa gis yu bokkut ak problème yi. man fi ma nekk nii maa ngi fi gis ñaari nit ñoo xamante ne nii heure bu ma waree génn dañ na maan dugaatal bul génn te ki ma jëlal fii daf may woo benn numéro privé mais nangu ma gis ko ba ba gisuma ko xaw ma moom mooy kan xam naa ne moom Serigne Serigne Daraame moom moom moo nekk ci ginnaaw moom moo nekk ci ginnaaw lépp ndax instant bi maa ngi gis leneen vocal yi nga denc ko pour après lu mënti am tamit. pour ñu xam ne waxoon naa la ko te ñoom ñoo nekk ci ginnaaw. man ma dara mais sama xel moo dalul sama xel moo dalul man ma dara maa ngi lekk ba jour maa ngi naan ma jëndal ay yére di ma jëndal lépp sama xel dalul.